amateurs yi wala boog ñi nga xamante ne dañuy dund làmb ñu ci bëri xam nañ Ziza mais dama koy bàyyi mu nuyoo euh, présenté mooy kan ñaata combat la jotee def ndax démb dafa ñëw fii di fi nga xamante ni mooy arène nationale doon def euh, signature contre moom Petit Niang mais signature boo xam te signature bu neex la béyoon na coow waaye làmb moo baaxoo coow ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi Ziza nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu waajur yi di leen ñaanal wér gi yaram a gudd fan di sant sama sëriñ sëñ Abdou amba ambassadeur di ko sant bu wér a sama tey ëllëg maa ngi koy sant ak soxnaam madame Seynabou Ly Mbacké ñu ngi leen di sant bu baax di sant sama gars yi quoi di sant waa pikin yëpp man ku ma xam-xam ne man doomu pikin la pikin rek laa maa ngi leen di sant ñëpp di sant ñëpp daal ba waxtaan bi commencé quoi incha allah. gis ngeen di sant ñëpp waxtaan wi commencé waaye balaa may balaa may balaa may xuus ci waxtaan wi Ziza ban écurie la nekk parce que Ziza dañ ko gisoon écurie Boy Niang mais su ma juumul jugee nga fa ban écurie nga nekk léegi. waaw ñun ñu ngi Ramdan. waaw loolu choix boobu. non man Ramdan laa mos a nekk. Ramdan laa nekkoon fa laa sama premier combat deuxième combat troisième combat yëpp fa laa ko bëree. xam nga école Boy Niang dañoo demoon pour jàngi rek comme dem nañ ba jàngi ba mokkal kay. mokkale da ngay ber sa daara. waaw. fi mu toll nii mokkal. moom parce que trois ans yuñ toog yëpp ak luñ jot a dund xam nañ xam nañ lu neex daal xam nañ luñ neex xam nañ lu naqari. oui Ziza ñaata combat la def. def naa ay seize combats xaw ma waaye seize combats laa def ah. am na ci mat ay onze victoire kon hmm. su ma juumul quatre défaites wala cinq nga def. def cinq défaites la cinq défaites waaw cinq défaites mais booba ak léegi euh, dañoo toog benn moment di gisatuñu gisa ñu ne Ziza dafa bàyyi làmb ñu naan dafa voyagé moment boobu lu tax euh, nga toog temps boobu noonu yëpp kenn gisu la. waaw pere boobu dama nekkoon ci ay difficulté yu doy waar sax période boobu moom dafa métti woon ci man trop aadama yi xam na xam na lu may wax fa parce que dama bëreeg Modou Awatine mu daan ma ma ñëw bëreeg Dame Sène mu daan ma. xam nga combat yoo xam ne da ngay jekk sa waay ba pare xam nga ngay gis sa bopp ay daan yoo xam ne. te loolu moon mosuma arrivé mosuma teg la ñaari defet moo tax ma reculer quoi. da ngay jékku maanaam da ngay pare ci wàllum entraînement wala da ngay parle ci wàllum mystique. si damay pare mystique pare fépp parce que man samay mbokk moom moo dëgg yàlla gàcce ngalaama waa Bignona yi moom gàcce ngalaama parce que doomu Bignona laa ba pare te doomu Bamba malien laa tamit en plus xam nga te waa Koungheul tamit dama fa am ay mbokk xam nga li ma la damay mën nit ki dem ba ci moom mosuma dem ci làmb xool ne fu ma jàppee ci gàllankoor man sama combat man maay bëree def lépp. mais damay daanu daanu yoo xam ne ni ay quatre appuis ay teg fes affaire yooyu. léegi loo loo bi nga daanoo ci combat yooyu. naka nga def da nga reculer xoolaat wala lan nga gis ne moo la yàq. waaw parce que dama boobu maa ngi école de lutte Boy Niang ba affaire bi amee dama toog ma ne man bàyyi naa lamb loolu laa mënoon def quoi pour préparer wu parce que gars yi boo nee bàyyi nga làmb rek bu dee 100 pour cent yu la jugaloon tamit dinañ la bàyyi ma toog 3 ans yëpp nekk sama ruq rek. waaw ah, sama ruq rek laa nekkoon di liggéey ànd seeg samay mbokk ak samay xarit ak samay am di jàmm parce que nekk ma fi woon ensemble maris lañ ma yóbboon pour may entraîner foofu quoi di fa lañ ma inscrire loolu lépp waaw ah, ma fay entraîner. ba gisaat sa bopp doo ko dellusiwaat ci làmb bi nga dellusee lan moo la dugal ci Petit Niang. Petit Niang Petit Niang de bi toog sax laa boole jam jàmm Petit ma man li ñuy wax ci moom laa gisul ci moom quoi. di nga ko gis nag parce que ndaanaan la di ko gis de. mais mais Petit Niang maa ngi ko ci wàllu làmb Petit Niang hmm? xool xam nga xam nga boo nee bàyyi ba nit ñi xaw a seen xel xaw a génn ci yow boo dellu si waatee il faut nga xool foo mën a tàmbali bu delluwaat waat ah, Balla Gaye gàdd gàddaayu fi Balla Gaye <laughs> waaw <laughs> daa mel ni damaa gàddaayoon <laughs> mais lu tax lu tax lu tax démb seen scientifique bi ngeen ñëw mu bàyyi coow parce que euh, kii di Petit Niang da doon waaj combat hmm. moog Brise de mais dañoo dem ba ci digg bi combat bi amul tat nga ñëw au dernier moment nga ñëw jël ko te mu nekkoon ci àll boo xam te nee na ma woon bu doon suba suba suba damay ñëw sëgg bëree nga dem dël Petit Niang Petit Niang xale la boo xamante ni bu jógee waa jàmm gën waa waa waa Kër Massar jóg mm. ñëpp dañuy jóg topp ko nga ñëw jël ko est-ce que du risque tamit risque mais combat bi ko bëree biir ko ñu ñoom Petit Niang jël combat bi ko bëree ko fa man su ma jógee ñëpp ay jug de man su ma jógee ñëpp ay jug billaahi wallaahi laazim c'est xam nga benn affaire dafa am ko xam nga làmb ji nii dafa nekk làmb joo xam ne nii moom lu mu ko jaral man jaral na ma ko man bëgguma ci dara man xamal la laaj man lan laa soxla parce que wax ji mi ngi bëri man sama téléphone gis nga nu muy sonné wax jaa ngi bëgg a bëri Petit Niang yow laay waxal gis nga xoolal maa la gën a gis nga booy maa la gën a dof du dara du ma ko may man maguma la du du ma sa mag duma sa raq xam nga baa dem boolu dégg di ma jéem a def xoolal làmb ji gënoo ma ko bëgg dama la koy wax billaahi wallaahi laazim man li nga ma wax yëpp nii xam leen rek laa ko mën a faje am ndam sa kaw wax ji laa mënul man fu mu toll nii li ngay wax nii man bu ma sañoon suba suba ñu sëgg bëre suba suba barki sëñ Abdou Lahad suba suba ñu sëgg bëre loolu laa bëgg nga def ka sa bopp bi. booy man Dominique laa juddoo nekk syndicat foo fa def fa lu ne man du ma ragal de. su ma jógee fii ci yow laa ci moom laa jëm de moom laa coupé léegi téléphone. demal ci moom nga wax ko yóbbante bi dama ne ko man syndicat gis na syndicat ngi nii tout près te Dominique laa juddoo. déggoo li ma la man fi ma dëkk ay dofu afiye ñoo fi dëkk ay Malick Ndiaye 37 fou fi ma dëkk nii boo amul fit doo fi nekk dama lay wax lu leere de xam nga boobu yaa ngi nax sax xalaat bi nekk fii di wax di wax dama ci boole wax nag ma li ma saage baal naa la xam nga laa lay dumaay ci biir làmb ja baat bi du sifflé booy xamoo. dalaa saaga dem ma moo indi coow li parce que man Petit dama dama wax ni man mos naa toog ba muy bëreeg ndongolo maa ngi wax ma ne ko nii booy yàlla la yàlla mbay na ñu waxtaan nii. sekki jàmm combat soq bi passé rombante ne ma ñëw di ko mbalak ko booy sarax ma tàndal ma mi ñuy mbalagante mais dugg si signature rek di saaga loolu si lan la bokk mais gars mi jël ay xaalis mu xaaj loolu daanu ma déggoo li ma lax loolu daanu ma de ay sa dërëm yooyu ngay sànni loolu daanu ma. billaay bi boo amul jom mën bëre am koo fu dëgg doo def dara. te man xam naa la bu baax man je ko ne très bien dama laa xam ba jeex mbëri maa ci ëpp physique parce que damaa football man quatre-vingt-dix minutes dama koy football dama la koy wax nga dégg. bu dee danga nga yaakaar ne état bi may yor nii mooy loolu jëluma poids de boo bëggee balaa ñuy bëre ba pare mën nañ daw si stade bi ba pare soo ko bëree wala ñu takk suñu loxo ñu taxaw ñu xool maa ngi ku siy daw booy jamono ji dama am ñaan pire laa lay wax. billaay wallaay nangu mu ma de mais dama am ñaan pire te amul lu mu ci tiit nag sa wax ju bëri yi ngay wax ni ay yow yow yow sax tàppen nga. yow nga naan bu la joxul sa fulaar doo bëri lan mooy fulaar man dama soxlaa yooyu. waaw mais non attends yéen démb yéen démb yéen a këpp fulaar bi mu takkoon ci bopp bi. mais man gisuma fulaar man gisuma fulaar xam nga man déet moom nee na yéen ko ko. man man gis nga man ba coow li amee sama oto laa dem toogi jàpp sama ñàmbur moom moo ñu signature ba di saaga moo indi coow li parce que xam booy bu ñuy signé te ji comme li benn Balla Gaye def moom mënu kaa def. yow doo Balla Gaye doo Balla Gaye doo yëg ne yow petit ñaanga man Aziz laa booy sa wax ju bëri ji gars yi ñu ngi ñuy xaar de nañ def fulaak fayda de. <laughs> non. déggoo li ma la man sama àdduna kii xam na li ma koy wax booy xam na sama yaay buy jaay fii jën papaan bi laa koy yan bañ nag moom coono mais boo laalee sama yaay man daf may métti loolu nag pour mu métti billaay barki sëñ Abdallah arbitre bi sifflé damay teg nii sama tànk bu yeboo sax ñu takk suñu loxoy maa ngi moom ñu taxaw di dóorandi. lool dina métti Petit Niang li ma wax yëpp dem démb bi ngeen démb de bi bi mu jógee jëm ci yéen ñu téye ko. dafa xasaraa yuuxu ne kii daf may gën a dugal ci combat bi. day gën a am problème. Ah, kon duggoo woon ci combat bi. man nag dugg naa ci combat bu yàgg de man dañ maa woo déw ma sax sëriñ di seet combat bi dama la koy wax de man bañ doon ñaq ba ma Assane Ndiaye di woo ma sax sëriñ di seet combat dañ maa woo rek ma ne nañ ma jox parce que booy bi yow koo romb si combat mu gis la rek nee nañ dégg kon am na lu mu séntu bu dee da nga yaakaar ban moment ban moment ban la combat bi taxaw ba su ma juumul dimanche bee passé samedi bi nga ñëwee stade mooy xam nga sox moo doon bëri ma dem stade petit ñaa fàttali bi ngay sol culotte bi ñëw di bandi bandi ñaa mooy non <laughs> man may bandi xam nga kirat laa sol ñëw romb ko mu yore tànd ba ma ne ko sarax ma ko di ko mbalak nii quoi ndax na saa li may wax doon moom mi ngi sama tànk. na lañ ma jox Aziz. waaw parce que man damaa dugg la ji xaaju mbër yëpp ku ñëw ku ne nag ma jox Ziza léegi loolu nag dina deñ hmm. bu mu la jàppee ba noppi. mais sa sa sa digganteeg Petit Niang. man kaas fonde de gi laa ñëw jox naa la benn kaasew. café gi la ñuy ñëw ñu jox la suñu café nga naan. kon jot naan naan. non moom kay kii Petit Niang <laughs> Petit Niang man xamal ma jaaxal moom sama rax la doon coowal sama rax bi ma bokkoon day ak baay moom la policiers yi jàppoon moor man coow man du ma coow billaay wallaay man du ma coow c'est que exemple laa man moo tax man duma ma coow xoolal tey lii nii yi ñi ngay gis nii xoolal nii man ñii rek laay xool xoolal booy ñëpp sama koñ la dëkk ñii samay doomu kii leen ñii samay copain xam nga mafia ñii nii ñii laay toogal chaque jour billahi mais démb dama la gis nga ñëw esaat ànd ak mbooloo mu takk nga mel ni ku jëm làmb ne ma euh, gars yi dañ ma ngembaat gars dafa am lu ñu defaat ci man gars yi dañ maa nangamaat mu mel ni dañ la sasaat sas sas bu bees ngay mel ni mbër moo xamante ne day doog a dugg si làmb. fii nag xam nga loolu foog ñu tam trois ans yooyu ma toog trois ans yi ma toog lii lañ doon lijjanti trois yu yuñ toog yëpp nag lii lañ doom def nag parce que dañoo moon ay nit ñii bu ñu amee ñi ñii di ñëw xam nga mer mero bi daal ay mero léegi dem nañ ba récupéré waat ñëpp ñu ñëpp ñu nekk si jàmm parce que tey jii nit ku nekk da ngay nekk ak fi nga dëkk nga am ak ñëpp jàmm loolu dafa neex quoi parce que tey ji man man li ma mënta am rek sama waa koñ la parce que tey ji bu ma demee ba nit ñi xam ma yàlla ak sama waa koñ ñoo tax mënu leen jaay dara tey ji damay jóge entraînement ñëw saa jox ma ndékki aadam yi wala ma ñëw fekk Assane mi nangu xaalisam wala kii laa gën a sonal ci kon bi Youssou wala booy coxoto booy yi man ñii laa mel ñëpp jàmm laa sekk ak ñoom xam nga lii dafa neex quoi xam nga li ma la mais tey mënumaa ñëw nekk si koñ di leen jaay affaire de star ay affaire damay feeñ tele non loolu amatu fi. mais dama gis combat bi. combat bi euh, délai bi soriwul. Hmm. te boobaa ak léegi est ce que mobilisation bi wala wàccaay li est que di ngeen ko fi mën a matal ba mu mat. déggoo li ma la Isaaxa Diop dèjà moom daf ñuy jëndal daf ñuy jëndal bolok Isaaxa Diop dem ba mu ñëwee stade gis nga ko Matar tamit dina jënd bolok maire Amadou Diarra suñu papa la dina jënd bolok Lamine Gueye dina ñu jëndal bolok Lamine Gueye mu sinu ak Youssou Babou dina ñu jëndal bolok non ñun fi ñu dal nii xam xaar ñun gaay feeb na gaaw rek parce que fu ñu dal dañoo bëgg a bërewaat quoi. waaw waaw dañoo bëgg ak Fallou Gueye tamit quoi Fallou Gueye tamit dina jënd bolok ñu dañoo bëgg a bërewaat. moom nag fi mu dafa xew. waaw mu ne waaw dafa xew mais c'est tellement xale la moom dafa war a jël sa cinq comme moom nee na moom xale la xale la dafa war a jël cinq man maay mag bi waaw man maay mag bi ama boo juddoo 88 ñu bëgg laa yóbbu kii mag moom da ngay rey rek non damay naan teg dama leen di trompé rek aw Moustapha Gueye mus na leen ko wax sama combat Rambo mu leen bu leen ko gis nii muy seen ni zizaan yi ba fekk mu jël mu comme nii nii rek mu jël ma sama entraînement jël ko Moustapha Gueye ne ñoom ñaar am na kenn ki moo gën a pare mooy daan te Moustapha Gueye wax naa ko nee naa ko su ma ko jàppee mu jeex man leer na ma man man man ziza man maa ko daa ko leer na ziza. billaahi maa daa ko sam boppu man Ziza laa gëm. lan ngay wax waa Pikine. waaw Pikine daam lu ma leen amee xam nga Pikine bi ma dëkk nii yaroo fi màggee fi sama lépp fi laa amee juddoo Dominique dama leen di ñaan seen doom ngeen jàppale ma ci combat bi ñëpp maa ngi woo ñëpp sama mag ama seen moo xam mooy suñu papa ñun Eumeu Sène Ama Boy Niang ñun ñooñu lañ am ci Pikine ak Sokh ñu ngi leen di woo ñëpp ñu jàpp si combat bi quoi dëgg yàlla parce que ñun amuñu lu dul pikin ñun pikin rek lañu am ko ñu ngi woo ñëpp waaw di woo café gi gars yi nii mafia bi parce que amuñu lu dul ñii waaw aada tamit bëgg naa nga jox ko mu sànni kàddu woo gars yi ñëpp ñëw pikin daal ak sama waa koñ yi pikin ñëpp ñu ngi leen di woo quartier yi ñu fi ne yeewu siraat parce que doomu yeewu laa doomu siraat waa benjaa naa xam nga ñëpp ñu ngi leen zeng ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw leen bay ñëpp bàyyiwuñ kenn ñëpp daal woo nañ leen mënuñoo tudd ñi bàyyi nii ak Ablaye Jigo Ablaye Jigo ñoom idi ñëpp ñu ngi leen di woo maam Thierno maam ak maam Thierno ay fan ñëpp ñu ngi leen di woo ah bàyyiwuñ kenn daal waaw. xanaa ñu jox aada mu am ci quelque kàddu. waaw euh, ñu jox aada boo am café gu neex bi dégg naa bi ñu ñëwee sax aada moom sa turandoo jot na fee naan ab kaas. aada nuy naa. waaw ñu leen fay bu baax di leen ziar yéen waa Wassare Lamb di leen bëgg bu wér a wér di leen wax site bi yàlla na doon ay télé. si barke Yonent bi di wax tamit mbër waa Tali Bees a ngi waaj combat bi retour la daa war a marqué empreinte am waa Tali Bees waa Pikine seen doom moo aye le 4 juillet incha allahu rabi nañ ko ñëw dooleel mu marqué empreinte am si kaw Petit ñaa incha allahu rabi yéen waa Boune nag boo ngeen reer si te xam ni ñun day fanaan si waaw. mais naka nga gisee état de moom. ak ba nga doon gis bu njëkk ba. non bii moom beneen Ziza laa gis waaw parce que daa lu mu amee waa Pikine war leen ko te doole ju bari entraînement bu wóor moo ko moo ko war fay waa Pikine incha allah kon ndam lu leer nañ si ko Petit ñaa daa bi mu yor na la. xel bu dal lañ si am. waaw waaw ga kii xam na si dara sac de boxe bi Adama Youssou. <laughs> mais naka naka nga gisee Petit Niang xam nga Petit Niang. bu baax. waaw lan la gën a mënee. mais xam nga Ziza fu mu jugee. moo tax sax mu jël Petit Niang bi mais xam nga ne moom Petit ñaa du lamb Ziza bu dem bay jël Petit Niang. mais nit yu ñu dem ba di leen di leen di leen boole rek. loolu defe naa lamb ju neex. waaw xam nga bëgg a def retour marqué empreinte bu leer xam nga bala ngaa dem si kaw foog nga jaar suuf léegi na incha allah bu daanee poteau ñaa pare gars yi dinañ xam ni déjà dellu si na incha allah. naka ngeen di waaj yéen supporter yi parce que combat boo xamante ni fii ak un mois wala un mois sax manqué na ngeen war a defar ay t-shirt wala rassembler booy wala jënd ay ticket est ce que loolu dina fi yomb. non bu Ziza ñëwee ba gars yi jël mobilisation bi dina xam ne Ziza dafa am retour ak ak ay mboqam waaw la te nawetaan la njëkk def. kon Pikine ñëpp ko xam ñëpp ko bëgg mu doog a ñëw si làmb gars yi gën a bëgg làmb di ko stop kon incha allahu rabi bu la kaatee ba waa buun ñëw dina xam ne waa Pikine pare nañ làmb ji incha allah. lan ngay wax lan nga koy wax moom mi Ziza lan nga koy ñaax soo amoon loo koy ñaax lan nga koy wax. Ziza fu mu teg tànk ni mu bañ kaa que def na retour gars yi xel dal si ñoom ku ko gis ne ko mbër mi ah incha allahu rabi bu teggiwul tànkam fu ñuy dégg fu ñu ko fu ñu ko doon dégg dinañ ko fa gën a dégg incha allahu rabi waaw. xel dal na si moom daal incha fi mu tol nii ñoom dafa mel ni waxuñ daal dañ na nga yokk loo yokk doyul de. kaa eh, leen kaa leen ay kaa yow kaa leen taxaw kaa leen rek kaa ma doon wax ma bëre di n'est-ce waaw ah. koñ bi léegi dafa géey quoi. waaw yéen lan la nga waxoon. waxaataan bëriwaat ko. Ziza moom bëriwaat. lan lan daa mën bëre. dafa mën bëre. waaw. yëngu na am na combat. waaw. Hmm. loo koy ñaanal. mu am ndam. mu am ndam. loo koy mu xeex wala mu bëre. mu bëre daan ko. bëre daan ko. ki muy na bëre de. waaw daa laa ki muy dajal mën na bëre de. moo ko fuuf. Ziza moo moo est-ce que xam nga ko. xamoo ko waaye Ziza moo fuuf. Ah. am nga yaakaar daal bu bëre am ndam. waaw. waaw baax na. Ziza booy dafa mel ni dafa booy mel ni gëm nañu xale bële ñoom su may bëree nii quoi su may su may kii ñoom laa njëkk a gis quoi si kii suba gi ñoom laa ñëw toogal di waxtaan ak ñoom. parce que yàlla moom ma bindee nii quoi man sama lépp ci lii nekk samay ñaan lépp rek ci xale yi. xam nga moo tax mais ñu ngi santaat yàlla quoi su dee wax nañ fi loo xam ne nii rek tegg ni ñu ngi jégalu quoi wax dëgg yàlla. parce que lamb ji lamb na nekk na lamb joo xam ne ni lamb ju neex lay doon quoi incha allah lamb ju neex lay doon yàlla na ko yàlla defal jàmm moom tamit quoi moom Diallo yàlla na ko yàlla defal jàmm quoi Diallo jéeri. <laughs> non ñang la sant. noo Diallo la sant. petit ñaa ñang la sant. non non petit petit ñaa Diallo la sant bàyyi mu dinañ ko sant loo jallo rek garaaw. yàlla yàlla defal ko jàmm ba bis ba yàlla may ma ndam si kaw man ndam rek laa soxla de ndam du ma ko mën a amee rek. yàlla petit ñaa petit ñaa Zizang la yoore nee na ñang nga sant Diallo nga sant. Eh, mais booy simu bi dem bul solo tiset weex di toog simbi ne ndax démb jaar naa fa de. mu soloti. tiset bu weex di toog si simbi. <laughs> loolu kañ la bi làmb ji jeexee wala avant mu ñëw làmb. avant avant avant avant muy la nekkoon après làmb ji ba mu jeexee mu delluwaat simba. ah loolu la yóbbante la bu ma demee dinaa laaj ban simba la nekkoon mais léegi. man damay dugg koñam man damay dugg koñam de. koñam ah, da nga ma jox léegi mu takkoon ma ko ma yóbbaale. non man loolu takk yooyu. man du ma coxoto yooyu noonu quoi. xam nga man moom xam nga taalibe laa xam mooy loolu mais maa ngi woo sama gars yi quoi waa temps booy waa Tambooy quoi ñu ma fawandool ba may xale ñoom ñëpp maa ngi leen woo ak su koy su koy jum quoi Crafal Couture ñu ngi lay woo bu baax a baax ñu ngi lay woo ci combat bi di la sant yow tamit ak ñoom Binta mbay ñoom Jaara Sëy xam nga Ndey Sàmb Mami Ndiaye maa ngi leen di bégg bu baax ak sama mag yi Fallou Ndiaye Meta Ndiaye Séri Ayda Ndiaye maa ngi leen di woo ak fallu Ndiaye ak Serigne Ndiaye quoi ak Ibou Sy maa ngi woo ñëpp quoi waa Tambooy xam nga parce que combat bi nekk na combat boo xam ne nii donc dañ see soxla mobilisation quoi wax yàlla ñu ngi woo ñëpp quoi mobilisation rek lañ soxla bàyyiwuñ kenn tëli fii ba café Ndiouga ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn na si ñëpp ñëw jàpp parce que ñun lii rek lañ am ñoo am ñu ñu ñëw di ñu dooleel parce que mbër dafa metti mbër rek dafa metti parce que soo gisee liñ toog yëpp lii leen doom kii quoi parce que mbër dafa metti yàlla ñu yàlla suturaal defal ñu jàmm may ñu wér gi yaram gudd fan ñu ñëpp am jàmm yéen tamit kenn amul seen fay wax dëgg yàlla mais sama staff nag maa ngi sant buri ba Gueye Doudou Ndiaye Lamine Dramé maa ngi leen di sant bu baax ak ñoom Cheikh Omar As Messi Cheikh Omar papa Jean Papisco Pape Samba Gol ñëpp maa ngi leen di sant di leen ba ak sama papa Victor quoi bàyyi ma kenn ak sama grand yi koñ bi ñëpp ak Henri donc fàtte quoi Henri moom suñu lépp la mooy suñu capot suñu capot borom dëkk bi xam nga Ibrahima Diallo waaw borom Bires Doré lu moom rek bokk na ak ñun ko ñu ngi sant ñëpp quoi parce que jàpp na ci combat bi baax a baax doom nday soq ak soq tamit fay ma sama bora doom nday gis ngeen soq fay ma sama bor gis ngeen li lañ koy defalee ñii day nekk ay xale yoo xamante ni démb euh, bariwuñu waaye bokk nañ ci ñi nga xamante ni neexal nañu stade bi wala bokk yëngal nañu ko coow li bay woon na nit ñi yaakaaroon nañ ne dañ doon xeex mais ci luy doxal làmb dong ci leen doon dox moo Petit di di leen wax ne leen xaar leen ma maa ngi nii dem seeti Petit dajale leen lépp andil leen ko ci Wassare Làmb jaa ngeen jëf ba beneen